cher Cheikh Ahmed Tidiane Sall feulé à Paris mang nous lay bu baax le Cheikh Tidiane le ziar bu a baax a euh, donc Gaï yi ah ñun de ñun de wax neex ñun ici c'est dimanche la page qu'il faut suivre pour avoir les bonnes informations voilà donc euh, ici c'est Dakar ñun ñu def nañ taxawal suñu gouvernement ba ba président Macky Sall paré ak Amadou Ba premier ministre ñun dañ taxawal suñu gouvernement waaw ñu former président li la Yalla dogal <laughs> premier ministre Anita Diop sama fans number one ok moo nar doxal waaw ñun moom ci combat lañ nekk ñun gouvernement de combat la ñun dañuy combat xoolal cooki fin lañ ne voilà donc ay ministre ministre de la euh, ministre de de l' intérieur ñoom Djily Diémé yooyu xam nga euh, ministre euh, défense euh, kii di suma suma su euh, ministre de la défense ay ay ñoom ay ñoom baatu dëgg ah ay ay ay ñoom ba jaxate yooyu voilà suñu gouvernement dafa riche waaw ay ay ay porte parole du gouvernement ñun ay ñu am yoro jade déedéet ñu porte parole du gouvernement ñu xoolal ñun ñun ñun ñun ñun ñun ay kii lañu am ay ay ay ay matal kagulaar <laughs> bii gouvernement bu riche ci réseaux sociaux yi lii mooy suñu gouvernement waaw ñu ne nag euh, aussi euh, ministre de la communication defe naa euh, kii la bëgg bàyyi bañkat waaw kay ñun fawuñu de ñun suñu gouvernement lañ yor kon nag les acti les activités républicains maa ngi leen di ziar leen nuyu ñëpp euh, donc gars yi tey li ñu war a wax bari na on a un on a une invitée plutôt euh, ce sera donc Gabriel Kane féministe euh, ndaxte nee na moom d'accord, enfin am na li côté bi nga xamante ne elle est pas d'accord mooy côté parité pour les femmes ndaxte gis ngeen ne dans ce gouvernement il y a 38 il y a 38 ministres et euh, huit femmes et juste huit femmes donc mon sommes d'accord. parce que nous wax parité euh, le président Macky Sall gis nañ assemblée nationale d'accord parité ci ak bu parité dañuy mu lu am solo tamit parité bi ko voilà donc assez Nous utiliser les femmes euh, comme genre pour pour voilà mais les les instants de décision euh, bu ñu duñu ñu gis jigéen ñu bari ni té dafa jot nag euh, tay même bu dee ministre de l'intérieur wala ministre euh, premier ministre on a déjà eu une femme mais mais mais ci poste clé yi ak surtout la parité dans ce gouvernement là mu nek vraiment 50-50 entre les hommes et les femmes kon nak ki di Gabrielle Kane dina ñeu addu ci ak ci yeneen sujet yu melni par exemple association yi nga xamné femmes de ménage yi la 8 mars da ngeen gis ne ñu suñu genre yi ak féministes yi ñom ñoom Gabriel Kane intellectuel yi surtout ñoom lañu ñu gën a gis au devant de la scène waaye nag am na femmes yoo xamante ne ñoom lañ ñoom ñoo ñoom lañ ko war a war a sargal waaw moom mu bokk na ci les femmes les femmes euh, les femmes de ménage et cetera et cetera. gars yi tey euh, tey da ngeen ma gis tey ma calme c'est vrai je suis fatiguée mais euh, tey damay def ndànk tey live bi avec beaucoup de calme ñu waxtaan ak beaucoup de sérieux également sama gars yi gis ngeen remaniement bi c'est vrai euh, premier ministre am na ñu doon ça fait un bon moment mais il y avait une liste euh, de prétendants à la primature Nous ñii pas de keneen mais mais de ma wax parce que mi ci gouvernement bi et on veut le mettre à l'aise par rapport à euh, Amadou Ouais, comme le président donc, Momo moo xam euh, na il y a une politique. Euh, kon nak moom mo choisir kii di Amadou Ba nga xamné aussi c'est un homme d'État faut le dire c'est un homme d'État euh, dinañu waxtané Assemblée nationale la fa également dinañ ñëw ci dossier Mimi Touré également euh, dinañ ñëw ci yeen wa APR yeen wa Benno Bokk ndax té ñun ñi tok fi ñun ñu ñun ñu dañu nekk ci ben combat bu combat bi jeexee ñu nekk ca leneen dellu ci suñu suñu reportage ak suñuy mbir ak maak immigré yi ñu dellu ca leneen ñun ñu fenn donc activiste républicain yi ay ñoom Anita Diop ñooñu ñoo ta jàpp flambeau bi pour jàppale président Macky Sall euh, euh, euh, maanaam jàppale APR jàppale benn Bokk Yaakaar ma leen di ziar bu baax a baax a baax mais ñun faruñu fenn encore une fois on fait ce combat là pour la République pour le Sénégal donc dinaa def sax benn kii noonu tuuti et c'est très sérieux pour le Sénégal pour la République parce que mois de mars sama genre gii xam nga ñoo fi nekkoon di reewantu ci réseau yi naan président Macky Sall di bajji bajji rey suñu bop Macky Sall ni président ni gaay ñi ngi bëgg yaq live bi def leen ay ñi ngi def bop mairie wa keur Ousmane Sonko wa keur Ousou Bébé ñi ngi bëgg yaq yàq euh, euh, euh, waxtaan wi def leen les cœurs maximum de cœurs li motax buñu paré live da ngeen gis live moy lolu parce que buñu am audience buñu def live mais buñu paré moy lolu def leen des cœurs s'il vous plaît parce que dañuy signaler live bi fii la nekkoon di reewantu di baj bajal naan président Macky Sall lii président Macky Sall lale voilà man mi ñibbi woon Sénégal ñi bi euh, demoon Sénégal ñi bi si mere président Macky Sall mere son régime mosuma saaga nag wax la wax la ma saf ndekete yaa pire ñu doon reewantu président Macky Sall nii di rey suñu bopp di xaacu di fugg dënn yi yàlla ne nag yéen xaar leen yéen da ngeen a réew dinaa leen woon naka la yàlla fexe ba war ñu as toq tuuti rek ci koo xam ne sadik la hypocrite imposteur moom dugu pale jaral na jaay bii jël suñu bii jaral na ko ko imposteur dugg pale sanq senegal sanq senegal ndax ñi ne ci ginnaawam sañ na lu ne nag sadik la di obalin caacoo piir di wuyu usu bebe wuyu piir na kooba kooba kooba baraajow la ah ba ma gisee loolu nag ma daal di dellu ginnaaw ndànk mois de mars bi dama doon neexal yàlla dama daan toog ba deux heures du matin def sama ñaari rakk di neexal buur bi yàlla ne ko dimbale ñu bàyyi bàyyi ñu ñu bàyyi ñoo ko président Macky ñu mooy ci ba ci kanam ndax kii kii dafa ñu nara a tànk yóbbu Séné

je préfère un milliard de fois président Macky Sall ba ñuy am keneen ku dal suñu xel ku usu bébé réewantu bi mo fi jeex nañu jog di daanu président Macky Sall kat ndax ñu ngi ci suñu jamm dama daan yewu di di di di su deux heures du matin jog japp julli di saraxu yalla di neexal su ma paree de ci rakay duma paré dé ma nga kurus gi façon ñaan bu ne ma nga koy ñaan

la république est en danger est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'on vit de ce qu'il y a ce qui se passe exactement cette cette opposition irresponsable prête à tout pour le pouvoir cette opposition irresponsable prête à tout pour le pouvoir yeen ngeen nek au au cœur du pouvoir ngeen rayante ci sen biir man li ma gis moom mooy am na ñu nga xamante ne ñu ngi ci biir alliés ci biir ci biir euh, euh, euh, kii bi maanaam yéen ci seen biir waa Benno Bokk Yaakaar di reyante ci seen biir plus que sax li ngeen war a toppatoo opposition bi. wala ngeen lijjanti opposition bi bëgg a yóbbu bëgg ñoo yóbbu sir xafaa du ngeen lijjanti ñoom Ousmane Sonko de yéen ñi ngi di reyante ci seen biir est-ce que yéen ñi ngeen di natt les enjeux du moment ñun soxlawuñu ay ay tamante dëmm ak ay ak ay defante. luñu soxla mom moy ñu jappalé ñu ci inondation yi suñ suñ suñ jafé jafé luñu soxla mom moy financement pour les femmes ak les jeunes luñu soxla moy ñu ngeen ngeen jappalé ñu comme vous êtes au pouvoir ngeen jappalé ñu ci suñu métti ak luñu ñuy ba paré nak ngeen musal ñu ci opposition malsaine bi malsaine et irresponsable mu opposition malsaine irresponsable boole ba ci way wa waawalo wa PDS bokku len ci vous êtes des ay ay nitu nitu état ngeen da ngeen a gérer état man usubebela kër Ousou waxal gang et son gang composé de d'espèces cadre des cadres yi nga au des caïmans aux dents longues ils ont des éléments de langage c'est extrêmement dangereux et, des experts en manipulation de masse They la preuve Avec inondation yi fan ngeen gis ay wa taxaw ci de jàppal askan bi ci inondation yi gisu len ko y en a pas beaucoup parce que même les riverains les populations xamewuñu sax sen sen maire yi ñoom waa parce que c'était tout sauf Macky Sall parce que c'est manipulation de masse mondiale surtout auprès des jeunes kon nag contexte bi yeen wa Benno Bokk yakar may leen ñu jàmm mun ngeen rayante ci politique toujours ay fa de rayante la mais li c'est trop c'est extraordinaire foo dem bu ñu jëwul Antoine Diome ministre de l'intérieur ñi ngi jëw diw ñi ngi jëw diw ñi ngi jëw diw ñi nga rayante ci seen biir on en a assez dimbalal leen ñu te ngeen te sax même bu bu fekkee ne faalewu lañu ñun sax ñun citoyens yi mais jàppale leen seen président boog seen leader Macky Sall mais vous êtes en train de vous entretuer et de laisser là-bas Ousmane Sonko ak seen manipulation de masse ñoom ñu ngi ñoom ñu ngi avancer ndànk-ndànk di avancer ndànk-ndànk élection bu am ñu am ay percées heureusement nak du du ñep ndax ay ñom pam malik Ndour yi ñu ngi koy féliciter ñoo doon dem ci mois de mars ak ñom ak ñom mambay ñaa dem ci ci plateau ya di di di rayanté ñu leen di sot soto dañ di wax lu ne mais ñay rayanté kon nak permettez moi de féliciter ay ñom ay ñom mambay ñaa le ministre du tourisme diko féliciter bu baaxa baaxa baaxa ba baax a baax defante ba naaw ok mambay ñaa ak a ñoo ci defante ke bàyyiwu ko waa kër usu bébé de bàyyiwu soxla gidde askan wi di remercier Pape malik di féliciter Pape Malik, il le mérite ministre de la jeunesse de l'entrepreneuriat il a toujours su et compris lan des réseaux sociaux Avec importance aux réseaux sociaux il est humble Il ne lay disponible Nous ngi koy féliciter vraiment parce que c'est mérité c'est un poste vraiment mérité di félicité Antoine Diom ak quoi ak lu ngeen ko meuna waxal élection yi dafa jaar ci yoon day liggéey té waxam bari du ci gaa yi gaay yi les années 2000 ni wa keur usu bébé nga xamné années année 2000 ña ngi doon raam yéen a yéen a xamul Antoine Diom waxon na leen ko fi ñun xam nañ kan moy Antoine Diom ñun ñu ko doon fekk bloc de euh, euh, bloc de Madeleine bu procès amé mu doon représenter le parquet ñun xam nañ koy Antoine diom bés bu nee bëreet ngeen xam ne nee na bëreet foofu rek laa yem ak yéen. Moustapha Ba ministre des finances il est excellent et très discret excellent fi di kenn il est excellent le monsieur côté finance budget tu bois ses paroles il te sort des choses tellement techniques mais tu bois ses paroles et c'est c'est limpide.

kon Yoro Dia rek dama bëgg maximum de cœur pour Yoro Dia suñu Yoro Dia la defé un journal Sénégal mom ñëpp a bëgg ci nomination bi wa CESTI ngi jubilé ñëpp ngi jubilé la personne qu'il faut à la place qu'il faut suñu frère Yoro Dia mooy gérer communication bi kon la gaay aussi gis nañ ne réseaux sociaux yi aussi les gens n'ont pas compris certains Sénégalais n'ont pas compris Matarba, euh, ministre des sports on n'a vraiment pas compris pourquoi Matarba n'a pas été reconduit au ma woon temps nag diggante pour jéem a creuser ñi ma laajte xamaguñu mais dinañ ko creuser parce que on ne comprend pas on ne comprend pas pourquoi Matarba tellement disponible humble il est tout le temps avec les gens il est il est c'est-à-dire que et puis même bu de loolu sax fu mu bàyyi football bi ak bien que nag ministre des sports y' a pas que le y' a pas que le foot mais Matarba, la laa gis moom mu ñëpp nag démb ba tey ku nekk ngi naan pourquoi pourquoi Matarba on ne comprend pas. ceci dit on félicite aussi waa réew mi di féliciter aussi waa PS nag waa PS tamit blocage bi tamit ñooma tamit ñooma waaw foofu nag laa yem ay alliés ngeen foofu la ñuy yem.